ak doon tamit euh, jóge nañ fële nga mooy Tarba Mbaye ñëw nañ fii nga euh, mooy soirée la euh, Alaaji Faye sëñ sëñ Ibrahima Dieng Dieng Diagne mais bañ dugg seen soirée dama dajee ak Ouzin Keita tonton Medoune jëlamal Ouzin sañse ba pare jëlamal Ouzin sañse Ouzin namaste namaste ah, ah. ma woote tey ma woote euh, tey ma lu lu kenn fu mu endo laa woote. Ariane euh, waaw maman Ariane Assé maman Ariane Assé. yow Ariane. Assé Sèye. Eh, bànn baa ngi nii moom moom ana Fayde. Fayde moom gënu ma bàyyi. baal maa maa ngi baal ñëpp di kontaan ñëpp Jami sama lakk di kontaan si yow macha naa yow doomu Sénégal nga xale xale bu gën macha allah kon fay bu ma wootee di kontaan jëm de sëy bi yàlla na yaa jàpp sëy bi sama kese naa woo sang-sang bi kenn ma gis ne tey da ngaa ñëw Fay. waaw sama gaay la lu ma xay loo moo koy dëgg lu ma xay damay yow sama xay la dafa baax ay ba sama xay la. tey lan nga nar xanaa tey da ngay indoo. tey law tey lëmboot la ziar bu bari di la baal wax te di la baal yow maa ngi yow dañoo yàgg torop torop nga nekk sama jigéen bu yàgg waay waaw yàlla la yàlla defal jàmm sa borom kër yàlla kawal leen ba ca kaw waaw ndax yow kenn du yow da nga baax nekk artiste boo xam ne lu artiste yi xew yaa nga fa teew ànd ak sa borom kër di ñu dooleel wane fu ne barki Seydina Mohamed man du ma wax nag ci micro yow xam nga loolu sax mais dama gis lu rafet li ngay def soirée sénégalaise ma dem dama dama la fay fekk yow ak sa borom kër ngeen ñuy dooleel ñun feccikat waxuma sa tëkkat yi mais ñun feccikat yi da ngeen ñuy dooleel bu baax yàlla na leen yàlla defal jàmm télé bi yàlla na doon ay télé télé télé. dëgg na dëgg na yàlla. te dañoo yàgg. am na. mais Mass fi ngay teg Baara gi Baara Mbaye fi nga koy teg guddi Sénégal dañ laa moomale Baara Mbaye yow. ah mais loolu la nit ñi wax mais dañuy jàng ba léegi ndax ci mag ñi mag moom. kuy root ci ñoom ah doo mës a feesal te doo mës a doyal ndax ñi ci boppam ah, maanaam baara mbay bu baax bu sax ci mag ñi lañ dëkkee kon xale bu ko ci bëgg a feccit tarbiyu mag ñi ba léegi man ba léegi damay tarbiyu damay xool mag ñi dama leen di xool yéen ñëpp yow ñoo bokk génération mais dangay fecci démb ba ni ku bokk démb dëgg dëgg dëgg te man xeebu ma baaw góor xeebu ma baaw jigéen ñëpp laay fecc waaw ndax góor soo demee bay fecc bul bañ bu jigéen ba bul bañ bu góor ba mais na nga ko def ci fulla ak fayda ak jom waaw mu góor macha allah gis nga li mu wax am na solo moom da ko def ci fulla ak fayda mën a fecce championnat du Sénégal wu fecc fini sabar deux ans yàlla la rek sant yàlla ak liggéey ak xool ci mañ ndax la ñu laaj ci concours de concours de danse boobu soo ko jàngu ci mañ doo ko def xale buy doo ko dugg ci fecc doo ko def lu ci mel ni faru jar baara mbay xam nga ardil ñaari korong euh, xam nga yaaba yaaba composé xam nga yaaba composé bu normal soo ko mënul doo jël boobu te man loolu am na ci jot a root ci mag ñi moo tax ma teg la ko deux di koy jël xam nga may ñaan yàlla ma koy teg la ay année année année ci barke Seydina moom kontaan naa maa gën a kontaan பரப்பை பெருகுள்ளே xaw a daaj ki nga xamante mooy Fallou Faye sëñ sëñ Birame Ndiaye Kelle Yaawa Diagne tontu Médoune jaaxal. waa mais chère Médoune Ngop. sama xarit. di la waaw loolu am na yow yow yow suñu suñu si sënga ñoo bokk deret yow yàgg waa seng seng loolu dafa yàgg jëm tamit waaw te sa jëkkër tamit nekk suñu frère suñu père suñu lépp jàmm rek nga am di leen di ñaanal daal waaw yàlla na seetaani génn si dëgg baal ma ak baal naa la déwénati fekkee déwén waaw baal naa la jami te baalu waa import ñëpp ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal di ñaan site bii nag dem ba ñu naan mooy premier média Sénégal loolu la ñuy ñaan borom. amin amin amin euh, euh, tey ba fekk la ci li nga xamante mooy soirée Allah du ma ne lu tax ndax ku ne Fallou Faye boo Allah ni jolie maman kon c'est la c'est la famille c'est le même sang macha allah mais tey lan nga fas yéene soirée Fallou. waaw mais Jami xam nga ne lii nii lay demee nga woote premier jour Calypso à la soirée sénégalaise ak waa Sénégal ñëpp. mu mel ni sant yàlla di woo ñëpp chaque mardi bi lay demee seet lépp ci biir ambiance fàlloo ngi ñëw léegi doxal. mais daa am son rab boo génnoon di yokk sa papa mais xanaa loolu dañu ko ñamal ci kanam. waaw loolu loolu loolu dinañ dinañ ci ñamal mais da ngaa war a ñëw ndax ko mais ñamal ko waa Impro mais mais Jami loolu. reggae bu ànd ak sa bopp. dafa doy loolu. waaw loolu xam nga ko te nag ngal la nag. bu kenn siif. ñëwal may ñu may loolu. loolu xam nga ñun géwél yi. Euh, seng-seng dafa bëri dafa am bëri talent ñoo xam ne ñi dañuy kii esray kele mati ndang ma seng-seng ñoom dañu déggoo seen biir loolu laa lay ñëwal ci fi nga xamante ne eh, mooy soirée Alaaji Fay euh, fii nu mu tuddati nga ne. fi mooy Calypso. kon te Calypso yi nga xamante ne chaque mardi la wala am fii ci Calypso. démarré tey ci lendemain Korité bi allah baal ma ax baal naa la. maa ngi lay baalu ax di la baal ax yow mi nga xam ne amaloo kenn ax Jamy Guèye ñu yàgg lool ci Yëri Médine macha allah yow seng-seng nga bokk ndax da nga yàgg lool xam lépp barki yonent bi. waaye boobu léegi dara ñaawul parce que da ngay nit ku baax sama maam nekkoon sa xarit kenn du la laal boo ñëwee sa kër gi kenn du la laal barki yonent bi boo waxee mu ne eh jamil kuukal <laughs> jabi waaye di baalu nag Sénégal ñu baax ah, di baalu Médoune sama xarit moom tamit mi nga xam ne daf ñu yàgg a jàppale artiste bu na jàppale na la wane na la partout dans le monde waaw <laughs> am na solo artiste bu ne wane nga ko partout dans le monde loolu jukkoom la ndax surtout Bour Sine la maama ma téema ñoon sëñ Bamba waaye kenn du yow sëñ-sëñ Ibrahima Dieye lu yàgg dëgg la te damaa yàgg ak waa sëñ-sëñ ne moom mi indi sëñ-sëñ Séri Babacar du nuyu tonton Mbaye ji ak waa sëñ-sëñ gépp joli maman Séri Fallou waaye ala ñu gis ni soirée da nga ko defee or calypso ay boit yu bari mais nga changé endroit lu tax changement bi waaw boo gisee loolu Jami ba léegi génn ma ville bi. maa ngi ci ville bi ba tey. di question dara parce que fi ma nekkoon xëy na dañoo am ay projet yi nekk ñoom te yàlla dafa def nag man mënumaa mënumaa ñàkk ba ñu tëgg nag parce que su ma tëggulee rek dañ ma koy laaj. parce que ñu bari samay soirée la ñuy wër wax dëgg yàlla parce que boo xoolee tamit soirée Sénégal am amatul fii ah parce boo xool parce que boo xoolee jour ouvrable muy ma tànn mardi bi nga xam ne sax tey jii nit ñi mën nañ dañuy xëy di liggéey. mais yàlla dafa def dafa ma boole ay nit yoo xamante ñoom ala bu lu mu tëgg rek wax dëgg yàlla du dara moo tax may wax dañuy ñëw. ci loolu ci loolu laay ñëw ak yow ala boo tëgg du waa ñi nekk si ville bi rek ñooy ñëw mais ba ci banlieue bi sax nit day jóge fu ne di ñëw. waaw waaw gis nga moom laa lay wax nii boo xoolee boo seetee ba seet jame yow xam nga waa banlieue bi yëpp ñoom ñëpp dañuy ñëw ñëppay ñëw parce man fu ne laa am ay nit aw ma Medina Colobane nit aw ma HLM ay nit aw ma Gueule Tapée Fass samay lépp lañ xam nga mais samay nitu bopp si boppam ñu ngi au ñu ngi si banlieue bi xam nga. mais allah looy xaar pour bokk si buuxante bi tam jeune talent yi ñu ngi buuxante de tonton Medoune xale ñu ngi buuxante di wax ay gros moo di génne ay single def ay clip toj dëkk bi looy xaar. waaw mais Jami xam nga def naa clip def na euh, son tëgg mais loo gis rek. man moom xam nga dañ may. waaw. dama koy kilip. Ah. lu neex ba pare leneen a ngi ñëw. Ah. waaw. mais lan ngay wax gars yi ñi nga bokk génération. non non ñoom dama leen di ñaanal rek carrière bi parce que aar bi dafa yaatu. da leen di ñaanal carrière mi ngi ñëw mais tamit buuxante la. buuxante dañuy buuxante man buuxante nag kaama la de buuxante wu ma de ñoom nañ buux nañ buuxante bu dee dañuy buuxante nañ buuxante waaye li ma leen di ñaanal mooy lépp lu ñuy def rek yàlla na ko sunu borom ëff. taal ko mu ok mi ngi noonu kontaan na allah euh, gars yi ñu jox leen rendez vous euh, mardi bi di ñëw fii ci Calypso ak Aladji Faye